Palace ci Radio Futur Media mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci suñu journal fait divers mu di xalaas fii ci RFM di leen ziar ci àjjuma ji di leen baalu wax di ñaan yàlla defal ñépp jàmm ma ci ànd ak Passepartout Aliou Badi Aliou Badi ma xool bëtt ci laa bokk. fii benn service après vente moo fi am. <laughs> non service de consommation. waaw benn service de consommation moo fi am. moo fi am te mooy Passepartout. mooy man jeex na passe fu ñuy tàmbalee. Ndiaye fu ñu jëm. ah laaj naa la ko affaire Saly ah mooy coow la woon ca Saly. suuf sa waa ji waxoon ne dafa jënd terrain ba pare dem ñu ne ko terrain bi am na borom. Mhm. ci biir waxam sax mu ngi doon expliquer ne ki ñu wax ne borom terrain bi la ba ñu lijjanti dafa génnee ay fetal. Mhm. kooku nag. Mhm. nekkul ci réew mi waaye am na ki yor dossier bi. ñëw na indi ay leeral. ci yëf yeeg ni mu demee. nee na bi benn waay moo ko moomoon su ma jumul sax ab tubaab la am ku mu ko jaay devant notaire. Mhm. kooku mu ko jaay moo ko jaayaat terrain bi moom. Mhm. te bi mu ko koy jaay dem nañu vérifier ca mairie ba. Mhm. ba mu leer. bi ñu commencé di liggéey bés mu jaar fa gis ne am na keneen kuy yëkkati leneen ca terrain ba. commencé fa def ay fondement ak ay birig ak yu ni mel. mu dem Descos kalaame ko. waa Descos bi ñu ñëwee xool moom waa ji. xam ne amul autorisation de construire. xol ki fa nekk mooy waa euh, Matar Matar. Mhm. momit amul autorisation pour construire descos n'alen, leen. Mhm. arrêté leen lépp da ngeen ñëw wuti keuy d'abord. mom mhm. waji indi leeral amna yenen na détails sax yu mu ci teg. dang koy deglu deglu mom sinjal ben bi wax ji jibee daf ni du xolo du xex dafa dem ba descos woowaa descos informer len ñooñu ñew fa de vérification gis ni effectivement terrain bi amna keneen ci ñew di ci def du borom moko bi lolu amé ki nga si commandant wu DSCOS bi demande leen ñu toute activité jëmale ko terrain yi ba mbir mi leer ndax euh, kayit nga xamanteni si moom lañu pour mën am droit tabax autorisation de construire

ndax bu jaar woon si yoon kayit yooyu yëpp du ko am ginnaaw bi mu jaaralee léppam nag si yoon waa jooju ñuy wax Matar Gueye ba des ko ne bu fa kenn dem moom moo jaar ci suuf jël ay maçon yóbbu leen fa ñoo ngi def ay construction pour wone ni moom def na fa dara te fekk na booba la fa gëtt a nekk lépp Mamadou Lamine moo ko moom pour wane ni moom dugal na fa xaalisam wala def na fa dara tax na muy jaar ci suuf après arrêt d'escos bi di fa def ay construction c'est juste rek pour préciser que ni Mamadou Lamine Diop du nit ku ku violent euh, responsabilité bi mu yor moo ko may ngànnaay yi mu yor mu yore ko xëy na soo yoree sa ngànnaay mu nekk sa biiri bagage ngay euh, wax ak nit bëtam daal dal ca mu profité ci loolu da nga maa doon defaree arme Mamadou Lamine ku ko xam-xam ne du nit ku violent du nit ku bari histoire du nit talul sax loolu foo ko fekk mi ngi ci liggéeyam mi ngi ci njabootam te personnel am mën nañoo seede lu mel noonu kii nag di Matar Gueye ah, ñi ko xam nee nañ c'est un coutumier des faits li muy wax noonu yëpp waxu boppam la te tey ba coow li amee Mamadou lamin li mu def mooy jël lépp jëbal ka yoon dem tribunal porter plainte xamal leen ni man kat samay terrain dama ko jënd fa ma ko war a jënde ki ma ko jaay bi mu koy jënd ci notaire la la jóge jënd terrain ñu jaay ko ko mu jóge si notaire jaay ma terrain ba may def samay formalité parewuma kii ñëw dal sama kaw ni moom moom terrain bi ma continuer def sama procédure ba sama papier yëpp daanaka yëpp génn looloo tax ma jël kayit yi fi ma jaar yëpp ci processus bi ma won leen ko pour que ngeen am des preuves à l'appui comme quoi que ni Mamadou Lamine Diop mooy borom kër gi Mamadou Lamine Diop moom moom terrain sequl ak dara Matar Gueye Matar Gueye moo nekk euh, lii muy wax di ko jëmale si nit ñi ci moom moomu la nekk kenn foqat ci wër alalam Mamadou Lamine jaar na fi mu war a jaar wax na ak ñi mu war a waxal def na ak li mu war a def ba koo convoqué woon nañu Matar Gueye moomu di wax

lu ñu yoon xañ ñu xam ni tam yoon moo ñu ko xañ waaye euh, dinañ teg suñu lépp ci yoon. xalaas. mi ngi noonu kon leeral yooyu lañ doon andi ci bomb bi nga doon wax Sali. mais nag Ndiaye. Uh-huh. dama ko dégg mu wax benn wax ci biir wax yi. Uh-huh. mu ne dafa dem mairie ñu ne ko terrain bi amul benn problème. Uh-huh. bi ma demee Sali. boo xoolee Ndiaye boo gisee image yi nii. gis nga ñi bi doon gas bi li c'était en 97 hmm gis nga fondation bi ni gis nga terrain bee nekk nii gis nga fondation bi aussi c'était en 97 hmm parce que buñ la ko joxee dañ ci def pen hmm def na fa pen def na fa teen def na fa fondation hmm ba pare yor ay këyit yo xamanteni préfet moko ko hmm maintenant lutax waxu salib am am am solo hmm moy premier cas bi fi ñewoon hmm. temps boobu non bi mu démé même service bobu terrain bañ ko won dañ ne ko amul problème hmm mu dem bëgg fay ñu retourner ko terrain ben gendarme moko mom moom loolu beneen cas la. waaw beneen cas la te ci même sali bi la. Hmm. léegi nag xam nga problème bi mooy hmm. ñi la war a leeral duñ la leeral. parce que ñun man bi woo naa le maire de Saly. Hmm. parce que il était au courant ndax am na ci projet boo xam ne demoon na. bi ma ko woowee expliqué ko cas bi yëpp daf maa ngi lay rappel dans cinq minutes ba tey jii cinq minutes jotagul. ki nga xamante ni moom lañ ci accusé naan moom mooy nekk en connivence ak gars yi mu nekk service domanial aussi muy ñu koy xayaa. woo ko téléphone ngi ci yoon nañ bàyyi ba léegi nag ñoom ñii nag muy ki ñuy wax mooy borom terrain ak paa bi di Makhtar Gueye. Mhm. ba ñu demee Descos ca commandant Ndiaye. Mhm. lam leen wax ñoom ñëpp dégg nañ ko. parce que am na si kayit yoo xamante ne bu mu génnee moom daf ne moom euh, Mamadou Lamine mi. Mhm. ne jabaram moom moomoon terrain bi loolu lañ di ko wax. ba ñëwee ba ci biir ñu ne benn tubaab moo ko jaay. waaw te ñoom ñëpp nag koo ci wax ana ki la ko jaay soit dañaan la dee na wala wul. noom tubaab bi jaay ko tubaab bi dafa am ku ko jaay kooku moo ko jaay. moom laa mais daf du njëkkoon wax ne jabaram moo ko moom. Ah. comprendre nga. donc c'est problème bii nii Ndiaye il faut que gars yi ci soit liggéey bu am solo wala yoon tamit juk dem service domanial bu Saly xool affaire yi parce que bari na fa de. waaw léegi ñun. waaw. Euh, fii la ñu mën a yem. waaw ndax kayit yi ñu yor terrain baa ngi Saly Carrefour extension waa juñ naan Pape Abdou Guèye. Hmm. moko jaay waa juñ naan Amadou Lamine Diop. Hmm. Hmm? Hmm. loolu daal lañ ci mën a am. danañ bàyyi yoon lijjanti ko kon li ci des fu ñu jëm feneen. Ndiaye. Hmm. comme tey la vendredi. reportage vendredi wala conférence vendredi. kii. dafa nekk xale bu ndaw. góor loola jigéen première partie deuxième partie troisième partie du ma ci commenté benn. góor loola jigéen jigéen la. ok bi bu nekkee xale. nekk Dakar di liggéey papaam génn àdduna. quelque temps après benn xaritu papaam woolu ko ne ko sa papa daa waxoon pour mu jël la comme soxna. munu ko sama morom papa nga kon munu ma sey gew te sama papa musuma wax lolou gis nga waji neeg bi mu tok diko wax lolou munu ko gis nga neeg bi fi ngay sey si te fi moy dom sa neeg xalé bi bañ 4 ans xere nangu dem seyel ko te neeg bu ngo waxon 4 ans avant mo nek neegam fa la wacc est ce que ci tak bi lañuy ñew après ñu ñew njaay ci lam fa dundu ci bir sey ba neex gi ah dafa neef neef bu gaaw ah xanaa mu néewul néew waa ji morom papaam la woon. ah ah tamit ah Ndiaye tamit hmm. premier parti ba pare doog ñëw ci naf gi ñëw ci tas gi ak ci war a delluwaat gi. Hmm. déglu premier parti nekkee xale ma am vingt quatre ans wala vingt cinq ans egguma fa sama gaañu may liggéey Dakar pour yor suñu waa kër ma jàppale leen ci dund gi sama xaritu papa bi sama gaañu fekk ko fa bi gaañoo ba mu yàgg la doog a ñëw jaasi mu ñëwee jaar si mu ni ani diw laajte ma sama yaay ni ko mi ngi Dakar mu dafa am lu ma papaam waxoon ci moom bëgg naa koo gis sama yaay ni ko incha allah dinaa fexe mu ñëw sa kër bi ma sama yaay waxee loolu woo ma ba maa ngi liggéey sàkkee kër ni ma fexeel nga dem këram ma daaj koy woo téléphone dem këram comme sama xaritu papa la woon dama damaa bëggoo sam papa bi ma ñëwee këram yan bu si fa mu daan ne ma sa papa dafa waxoon ni man ak yow nañu sëy ndax bëgguma ma ci dara il ñu sëy parce que bu bu ñu demee àllaaxira damay layoog sa papa te sa papa di kon il faut il faut que ñu sëy ma ne ko man de sa papa loolu ma wax dama lay maye kon xam naa ko yow la doon wax mais yow moom bëgguma sëy yow ndax mag nga mu daal ni ma néeg bii ma la dalal gis nga ni dalalu ma la ci saal ci sàll ñi dalal gat man ko am ma néeg bii ma dalal mooy sa nekk ma ne ko néeg bi la sama nek parce que dama fi say si loolu mu ni ma néeg bii mooy sa ma la dalal toogaan na ñeenti at ñeenti at sëy bi am te nek boobu nonu moo mujjee nek sama nek ci ñeenti at yooyu ma toog sëy ma ak moom ba dugg ca sëy ba dama duggee ci sëy ba ma sonn fa lool bëgguma détaillé lépp li ma fa doon dund premièrement bi ma njëkk naxe mooy bi may tak dan ma ñaata me lay may sama yaay ni ko ne ko fii de téeméeri junni moo fi xew mu ne ma allah ba may may xaaju maa sax may xaaju téeméeri junni mu ma lii na yam suñu diggante max may sa borom kër may sa kilifa kon li ma lay may concerné wul sa yaay wala say mbokk suñu diggante la kon bul wax kenn li ma la jox nekk suñu kër am fa semaine doogay ñibbisiwaat Dakar. moom kilifa gi Dakar a dëkk biñ defee loolu ma jël li ma may ma denc ko daal ni ko yaay comme yow da nga te gis nga ñun problème yi nekk te man mii am naa borom kër te damay sëyi kon xaalis bi ma ñaata la waaye nañ ci jënd ceeb ak diwlin fay ci courant te nga bañ a xew bul ma xewal bul ma laajte lenn bul ma jëndal daara nan nan dund kër gi ba léegi may wax ak yow sama yaay xamul ñaata lañ ma may kon benn yoon bi ma njëkk na xam ni noonu ma dem këram mu ma ci maro kilifa nga jëru ñu lay muur wala ñu lay defal ay affaire ñëwal rek soo ñëwee nga dugg sa nekk bi ma ñëwee seeti ko mu ma doo delluwaat ma ne ko man andee ma samay bagage sama yére yépp mu ne ma yépp dinaa yónni ñu jëlsi ko waaye da ngay toog tax jabaru kilifa nga noonu laa toogee ci këram ga ba ni ma amee doom sama doomu taaw sama doomu taaw am na fa taaw pareegul de léegi dañoo war a ngénte ñu war maa tuddal bi ñëwee suba la tudd man ko man gisuma ba léegi nga ne ma kaa jël mesure wala looy sol wala lii mun ma déedéet ma duma la jëndal yére ma ko lu tax mun ma fii ko am doom duma la jëndal yére man ko ñun xamuñu loolu sama yaay day ñëw ci ngénte li ak sama mag yi mun ma nga sol li nga am wala nga sol li fi te boobu aw ma dara lu ma sol ndax boobu xale laa woon maa doo liggéey Dakar am ay zip ay yére olof mais aw ma lu ma sol pour ngénte aw ma lu ma sol pour ngénte sama yaay bi mu ñëwee bi ñëwee suba la sama yaay ñëw ma wax ko sama yaay ma ah loolu day kaf rek waaye kilifa gu toll ni moom xanaa mu ko amul woon sax xam ne amu ko bu dëkkoon ci néegu ñax ci étage sa dëkk te am ko sama yaay ni ma dalay tooñ rek xam naa dalay ñëwal ay garaam bu ak yooyu dem ba bisu ngénte la ci suba joxuma dara joxuma dara doomam bu mag buy sëy ca ba ñëw ni ma diw ko a munima loy sol ko sa papa la jëndal mom man dama ko faté wax sa papa lu jëndal ko am doom yéré mais dina la abal lo sol ci ngon gi nga sol ko ko man ko fekk dañ ko nara ab bayna bañ fay yendu ni hôpital la nek lolu mo upp sutur ndax ñu xamnu lolu mëna muno yendu hôpital bu guddi bay rek ma abal la lo sol dem abali ma ma sol lam ma abal ma sol ko ci guddi ga dama ko lemat jox ko mu yobbu wat ko lolu yépp sax du kaab dama lay wax rek ñamal tuuti lama fa daj ñu ci ad ma ëmbaat bima ëmbaté ñaata wër mënuma dem hôpital heure bu nekk hôpital mun la comme dangaa nef day rus ñu xam damaa ëmb léegi naa ko jéem a nëbbu ba ci kanam su ma nee jox ko ordonnance mënuma xaalis nekk gu fi bu ñuy jëndee ordonnance ba ma demee ba sonn am ñetti weer wala ñeenti weer ma jël samay bagage ñibbi suñu dëkk bama ñibé ba am juroom ñaari weer taxaw ma hôpital ma wo sama patron ma daan liggéey lu ma jël auto nga ñew légui Dakar ndax yow dañ la opéré won amul at nga ëmbaat ñewul fi ngay togu dina am koy menace kuy foto ak li ngay togg ma la koy fay te du près dina la jàppale ndax bo amé do nga am lo yéré sa doom ak sa doom bu njëkk ba non laa juggé sama dëkk ñëwaat Dakar sama doon liggéeyee lool yépp sax wul li metti moy li ma waxoon ni ma lu mu yag yag fi ngay jatt lu mu yag yag ci këram laay mujjaat xalaas pareegul de Hmm? paregul de kaa bi des na Tasna na tas na fi nekk ba dem wa non tasul kay dafa dem wa da dem na wala wa ba ca dem la wara war bi tas hmm bi mhm. tas ba mhm. nak après la cey top hmm loolu lol moy lima metti ndax nit nga tak xale bu tuuti yow ya, sey do makku ko ci ñu yëng nekk kilifa kilifa gu mag yoroo ko tabaski ba tabaski la lay jox ñaari junni wala ñetti junni tabaski ba tabaski da la koy jox ndax sey ba ñeenti at la am kooku mu jóge ca sey ba ñibbi tas ba ñibbi sama kër sama amal ko papa moo ko sonal ba may ma baat bi ma mayee baat dari dara du jóge ci kër gi dara sama yére rek avant ma ciy jot toog na ñeenti weer wala juróomi weer mu doog ma jox sama yére waxuma laa nag ay bagage yu nekk ci këram xalaatuma koo jël kooku kay xanaan kon bu tasee war am na droit di mutiwaat beneen kër waaye ba léegi lam ma waxoon loolu laa gis ne ma lu mu yàgg yàgg fii nga jëm si waat dox ñëw wala daw ñëw rek rek fi nga wut jëm si te fi mu toll li may wax yow war naa am juróom-ñett fukki at boo ko amul it jege na ko man maa ngi sama fanweeri at ak ñett wala ñeent te ba léegi nii ay nit di ma bëgg yu yu baax nekkuma Sénégal gis nga numéro bi may lay vocalé ba léegi nii ku ma bëgg rek boo seetloo suñu diggante pour nga dem listixaar ndax c'est des fois ñu listixaar ko ñu la boo ko takkee lii gën a sedd ci yow mooy faatu des fois boo ko listixaaru it boo waxee ay wax yu dëgg ba ma xam ne yow mii kilifa nga wax ko sëy boo demee duma la gisaat maanaam sëy yooyu yàqu yu dul jeex dama nekk xale bu ndaw ku ma bëgg sa ñu yàqu maanaam man damaa toog du ma sëy wala damay delluwaat ci kër gi nga xamante ni boo ëmbee du la yor boo amee doom du la yor nga sonn fa lool te am ko lool may ñaan nag ndimbal ndimbal bi may ñaan mooy su ma gisee ku ma jàppale te yàlla rek tax dem naa nag ci ay sëriñ ba sonn envoyé naa xaalis ba sonn jox ma ay sangaay ba sonn te ba léegi ni may wax ak yow dara dañu ci ma dem ñu ma kilifa gi nga doon sëy daf la dëj fa ngay delluwaat wala doo ma jógee woon ma métti lool dama fay delluwaat wala damay toog bañ a amati jëkkër damay ñaan yaa rabbi képp ku ma dégg te man maa dimbali te yàlla rek tax ma am borom kër wax dëgg yàlla am naa ñu may bëgg lool wax dëgg yàlla mais kenn mënu takk ndax mi ngi du neex a waxal de ndax daa gëm ne li ko dal waajeeg ko te. daa jeexagul sax nag de Ndiaye. Hmm. Ndiaye kii fu mu toll nii boo ñëwoon nii waxtaan moom boo ko takk bu tëddee guddi gént waaj. waa ba tay mais loolu mbir yàlla mais déggoo ma ne la du neex a waxal parce que dafa jàpp ni li muy dund nii waajee ka ko teg. Ndiaye kenn mënu koo dimbale ko dul yàlla na jël léppam rek teg ci yàlla. ku ndóbin rey sa maam. waaw d'accord naa mais fi mu ne ndóbin yi sax ñuulatuñu. ku la waxoon ne la fii ngay sëy nga toog quatre ans mu nekk dëgg. yàlla ko waxaat la même mu dee. de. <laughs> Ah, moo tax yéen saa mu bàyyi nit mu a wax. am na ñu ko de li mm-hmm. wax na rayandi am. fan ci ñooñu def bâche verte yooyu. ah ñi def loterie. waaw ok. maçon bi dafa noonu rey mhm. dafa teel a ñëw tey. déglu te dafa teel a ñëw dañ déglu. affaire bi am nañu barki jaar ci croisement ñàkk bi mooy euh, gaa yooyu def seen affaire kii yooyu mooy coow loolu ngeen fi dugaloon rek fan yi paase barki démb bu fekkoonte ni yàlla def na amul ay nit yu bari kon faw moom am mordom parce que waa ji maçon la dafa jugee chantier ñëw ñu kar ko xam naa dañ ko kar rek ak expliqué ak moom mu dugg nee nañ moom daal trois cent et quelques mille la wax parce que nee trois cent cinquante la woon mu rocc dix mille jox copain bi mu àndaloon rocc beneen dix mille jox kële daal di wecceeku ñu joxe paas bi mu foofu war ñibbi gars yi kar ko trois cent et quelques mille yëpp mu ne nag jox xaalisam daanu foofu yi coow lim nekk fa weñ yi bagage yi ñu ñu andi fa coow loo xamante ne kenn mënu la wax xalaat naa ne bés dina ñëw moom dañ ci am ay ay rëcc yu yu garaaw yu garaaw a garaaw a garaaw parce que nit ñi ñoo ngi ci ne jom kenn waxu ci dara kenn waxu ci dara dégg naa nag yéen yéen rek laa fi gis teguñu ci cinq minutes dégg nga. Hmm. gu métti moo fa noonu am. waa lii nii. waaw état bi du ci jóg. ah waaw baax na. balaa ñu ci nag rayante am fa ba bakkan waat wadd fa. parce que gars yi seen xaalis du lii est-ce que araamul ci réew mu mel ne Sénégal. loterie pays laïque. ma ne ko ci pays laïque. ah. kaa <laughs> gi noonu. yaa neex waaye. man kay pare naa si. <laughs> lan lii kay liñ ko mën a xool. man kay Camara pare na. mooy autorités yi xool nuñ ci mën a def. wala ñi nga xam ne ñoo sécurité réew mi parce que loo xam tamit wóoratul. Hmm. da nga koy teel a arrêté mu teel a arrêté. amee ah, nag man je pense xeex bu njëkk bi ci kër yi la. Hmm. xeex bu njëkk bi ci kër yi la. yar njabot gi wax ak nit ñi ba yu mel ni ñu bañ di ko de dañuy wax ne rew yi ger am ñi ko jur mooy gerkat yi ak ñi nangu ger yii yi muy dox manam bu fekkonte fen. bu fenn tok fu mm. suba ba ngon jot gisunu kenn buñu gontu di sempi mais fekkente ne fa sampé 8h 8h30 nit ñi commencé len rang mais duñ fa juggé motax c'est-à-dire ci kër yi lañ ko ron jëkëli jënté bala ñuy xaar leneen ci ay état ay sécurité ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen. Ah. rayante na ci am de. yow toogal fii di rek. même front de du mat weer. mu arrêté du mat du mat weer laa la wax nga dégg fa lu ne weñ. lii maa ko wax te yàlla bu ñu yegg ci yooyu nañ dem front ay xale yu góor xam nga da nga gis njaay bu xale yi di yalwaan ay maire ñoo leen di yor. Mhm. mais bii nag ay xale yu góor. Mhm. ñoo nekk frontière dañu ay xale yu ndaw. jigéen yu entre trois ans. cinq ans di leen yalwaan loo fu ñu leen jëlee fu ñu jóge kenn xamul. ñu kañ ay frère lañ wala. ñu kañ la ñëw na. kon lii waru laa jaaxal. yàgg na de mais dama la ah lii Ndiaye. booy seet sax du ñu làkk-làkk réew mi. waaw mais loolu ay ay jigéen ñoo ko daan def. ay mère dinaa indi ay xale ay xale yu góor di yor ay xale. Eh. fu ñu jëlee xale yi yàgg na fi de. ah yàgg na fi de. xoolal ñoo nekk nii Aba. góor ñii góor ñii nga gis nii ñu ngi nii gis nga Ndiaye xale ba. xale yaa ngi noonu kii ci xale yi la. Eh. dañ leen a andi di leen yalwaan loo. waaw lu ndaw lii. lu ndaw lii. dañuy wax olof ñi. du duñu wax olof. Ah, ci yeneen fii fii la tëdd gis nga fii la ñuy tëdd ñoom bàyyi xale yi dem yalwaani. Eh, xoolal xale bi ndeysaan Ah, lii nag ngay def ba internet yi mën koo gis wala kenn ama droit man leen koo wan. moo ma ci xaw a jaaxal ndax ay xale lañu. ay xale lañu am na ay xale. Ah, xanaa xale bi surtout mooy mooy problème bi. moo ma ci xaw a jaaxal. déglu la frontière dama la envoyé ay photo la parce que benn situation bu jaaxal la bu am xew fii ci booru frontière bi. ci en face Notre Dame du Liban koñ bi ñuy wax cité tubaab ay xale yu góor na ñooy saraxloo saraxloo ay xale yu ndaw yu jigéen gis nga xale bu jigéen bi ci kaw ku romb nu dogaale la di fayeeku di la laaj ay xaalis daal maanaam pour saraxu bu xale góor yi nag ñooy ñooy ñoo tëddee ni di neraw nii mu xamul ñoom fu ñu jëlee xale yi nag quoi da leen adopté wala fan leen doole dañ leen kidnappé wala dara koi en tout cas daal ay xale yu góor la di saraxloo ay di saraxu ay xale yu jigéen yu ndaw affaire bi daal def nu bëgg a jaaxal quoi ba am daal euh, ku ko foto ni sama benn copain envoyé ko envoyé ma ko. ay sénégalais di ay xale yu jigéen yu ndaw yu bëri doon fa yor ah bon man man déjà man semaine passée romb sarax naa leen rek parce que bolo ñoom dégguñu olof da ngay romb nu jàpp sa yére comme quoi di la taalal pot bi quoi pour nga def dara si pot bi. ah man xaw ma woon ne euh, booy yi ñoo leen yor ndaxte booy góor yi ñoom ñoo leen yor ay booy ndaw xaw ma dañuy liggéey guddi gi ñoom bëccëg bi nu nelaw nii léegi la leen bi photo quoi. mës naa kilifa dama fàtteeti kan la mu ne il faut que réew mi ñu am culture dénoncé mhm. di boole waaw xam nga li mu def nii jokkook yow ci xalaas mhm. waaye yëgle na ko ba nit ñi xam nañ ko waaye nag da cee waroon teg demal boppam police wala gendarmerie mhm. bu fa demee ñam fay fekk ñu fulal ko fay daal ko xam ne kii dafay alerté li ca war ñu def ko beneen problème bu am mooy tey bu état bi jugoon gàddu leen génni leen ci mbedd bi fu mu leen jëme fu ñu jógee. yaa fu ñuy dëkk waa kay. ah <laughs> mais xam nga li nit mën maanaam li Matar mën dem ci sous région bi jëlee fay xale indi leen. Hmm. en toute irresponsabilité baal ma ci kàddu gi état bi mënut a gàddoo noonu ay xale rek dem sànni nañ ci sous région bi. état la loolu nit mën na ko mais état mënu ko. man am na lu may seetlu xam nga nag yéen seetlu ngeen ko seetlu leen ko. Mm-hmm. te bari secteur maraîchage bi ne ba jëm côté booy génn maraîchage. Mm-hmm. dañuy gis jigéen joo xam ne am na war na am Mhm. wala mu yor ay lu mat ay cinq liir lu leer laa lay wax de. yu tooy xepp nag yoo xam ne ci nàmp lañ tool te mu leer na ni ñii ñëpp duñ ay ñii ñëpp duñ. mënu koo jur. Mm. lu leer laa lay wax. xëy na xam-xam ci santé de la reproduction. déet waaye ban santé de la reproduction Ndiaye yow tamit. Ah, am na yow gis nga mu boot. nga mënu koo jur. dama ne la ay maire yu màgget laa la wax. gis nga gis nga gis nga Ndiaye. ruutu ruutu parc bi. femme 60 ans. ruutu bi wala rond-point Maris. man loo xam ne dama jiite sëñ bët laa lay wax. amna ko xam na nguy gis mu yor lire bu toy xep dañ koy laxas ni di ko ci bor tale bi mu leer la ni ki ni sa way ah na daal. ñaan lool lu nekk sa dom nekk sa dom wa droit yi nga xam ni ñoy xex enfant ak yoy moom lool war nañ ci juk ko même lool moom war nañ ci juk quand même lool lu nekk sa dom mi xale bu toy xep nga jël ko fop ko wala bop ko di ko wala and ak moom di yal loolu lool ko jur jur jur ñi yor droit ci yefi xale ak yoy motax gis nga et puis fañu nek sa moo wor ci ay bor autoroute lañuy nek ak ci kaw ay rond-point musiba mën na leen faa fekk chaque jour autorité yi romb lañ ci kaw talibi xala yu ndaw ndaw ci bir auto yi. mais ci porte boîte de nuit ngay dugg ci boîte ba genn fek fa maire bu yor ñetti xalé wala ñent ci buntu boîte bi. 5 h du matin 4 h ndax xalé boobu mom bu ëllëgee bu ñu la waxé da bëgg bal wala ki da mëna bal <laughs> bu ci tek bat ah ci balu kay bal lan né non mais c'est grave. jay ñu <laughs> ñëw Ndiaye du dañ fay criminalisé woon sàccum jur. waaw su ma jur vol de bétail. Mhm. waa ji dafa nekk diggante aaneen nag kër Madaroog dëkk yu ndondaan yooyu. Mhm. di ramasser seen i xar saa yu ñu ko jàppee tëj ko benn un bàyyi bàyyiwaat ko mais bii nag musiba da koo dal ca dëkk ba la dëkk. Mhm. waa dëkk ba xam ko mu ramasser ay xar jëm moom pour dem jaay ko def ko ci otoom benn 307 bi muy dem ba yéeg doodaan bi. di wacc ak ñaari xar yu wad léegi auto bi toog ma ci ginnaawam jël xar di ko klaxonné pour niko amna xar yu wad mom mu fogg ni ma auto dañ koy dakk yi hmm. muy daw pour sauver ñoo nga xamni li lii seen xel tey ni photo auto bi photo matricule bi dem seen garage nak diko publier far yalla ñoo ñu dem di xol fekk na auto waji la waji a dëkk ci dëkk fi mo waxee japp nañ ko ma nga section de recherche bu Thiès ak auto ba. ak xari ak xari ya waaye nag ñii la ñu wax ci sàccum xar li leen waaj def. Hmm. nga ci tag dee de. Hmm? waaw. ñu lay ñoo koy waxal seen. ñoom ñoo koy wax. ñu déglu déglu. waaw numéro oto bi moom mi ngi noonu 77 01 LGC moom la waa ji Mbay Njaay la tudd Touba Gueye gii la dëkk Touba Gueye boo dem ci route nationale numéro 3 bi boo passé Kër Madaaro après gaarasu Anen kooku moom nga ciy avant cene dëkk bi mu woon ban jàpp ko actuellement Kër Magey Ndaw la Kër Magey Ndaw daanaka dëkk yi ñoom ñaari dëkk yi leenu taqaloo dañuy sësaloo te jëkk moom li dafa jëkkul te saa ko jàppee daanaka du yàgg kaso te fi actuellement ñi nga xamante ni ñoom la ñuy sàcc ci tund wi amul benn sàcc amul genn sàcc goo xamante ni moom loxom xam nga 307 moom dafa gaaw maanaam malheureusement tey moom bu yàlla naree weer rek da dul doon sa bis day daw jéggi doodaan bi bi mu ko maasalee am ñu jógee Touba Peku toppan ci ginnaawam am ci jur yi mu yaban am ñaari ci wadd ñaari ci rot nag gars yi jàpp ni moom yëgu ko ñu di ko def siñ di ko klaxonné pour moom ñooñu dañ koy topp mu daw ba dugg bay biir Thiès ci la defaati demi tour gars yi gis oto bi foto ko daal jàpp numéro bi daal koy annoncé bi ñu demee bi fi ñu taxaw fi ñu fi la ñoom chauffeur doon xëy ñu yeew jur jur yooyu foofu léegi bi ñu yi kooku daal di ci la a sàcc après ci lañ daw ñu dikk jox leen oto bi wadde bi ñu na demi tour bi ñu dikkee gaaru su Thiès fekk muy raxas ñu fekk ci karawe xar yi mais bi ñu ko laajee dafa ñëpp moom xam na ni sàcc la sàcc pire wax dëgg yàlla moom mi ngi bëgg a sonal parce que fii dëkk yi mënta yeewu a ah neen am na benn directeur école bu fi nekkoon xaram yi baax noonu ko fi sansé benn guddi benn enseignant la même chose neuf xar ñu ngi koy wër mel ma mel ma dafa da doon sàmmi mais ko téye ko bala moo jur ci àll bi ci guddi gi di ko sàcc foofu ci yoon wi la jur moom lañ leen wax ni ki la ko waroon ni ci àll bi jur kon loolu fi nekk ni kër Birima lan fa yan wat ni juróom léegi yow nga dajale ay at di sacrifier ay gunay xong ci balaa nga am fii une semaine ñu seen leen ñuy taxawaalu nekkaat seen seen ola la wax dëgg yàlla loolu nañu dañu cee état bi dañu cee war a dimbali tax pen bu ne dañoo ba dix prison nga gis ko kooku sàcc nga jàpp loxo ci poos mu dem wuti avocat sàcc fu muy jëlee avocat sàcc criminel ñoo yam ak kuy violé war ñoo am avocat ngir yàlla nanu dimbali ñun mënatunoo nelaw guddi mënatunoo nelaw bëccëg te gunay xong cur fan yee passé aaneen genn kër dugg nañ fa luy bëgg a mat fanweeri xar te danoo dajji woon miir ba ñu dàq leen ñu demaat ci geneen kër dafa mel dañuy ñaawal te sàcc yi dañuy armé wu ngir yàlla nanu ci dimbali attaqué nañ fi benn paa kër ma daaru googu keroog bu waa dëkk bi yéexul woon dañ koy rey nanu ci dimbali nanu ci dimbali kam kan ko andalon kenn ka deena jadah mais ka ja dess ma ngay doxi soxla nanu ci dimbali metti na de dëkk ki lan ci gëna a yeb aaneen mboojeen njuxan dul kër yi brañ naan ndiren kër ma daaro kër ma gey ndaw muso ay mbojeen dëkk yooyu ñoom ñom daal leen gën a ciblé ñom dal lañ gëna a ciblé surtout anen aaneen moom fa jëlé ci xar buñ ko indiwaatoon dekk bépp ay immeuble lay do liñ fa jëlé ci xar buñ ko indiwaat li ci lañ koy duggal ñu ko nan yalla xamna ni dina dem ba suñu dekk bi kun fi gis te xamatu la guddi bala ñoo la némé ko xamni da nga jam nga doon dox dess la sonal te bu wuy woon ñi nga ko ñi nga xam ne ñoo ko doon woon noonu rek pour jox ko yëpp mën na cee bañ a yegg de. te de nga ñàkk wuy bee ko gaañ moo tax boo nekkul ci loo xam du dëgg sa fir bi du dal. sa xel du dal. en fait damay laaj sàccum xaar jar na yegg section recherche. Ndiaye. vol Ndiaye cinquante laadum laadum bu nekk bu dee jar deux millions ñaata la. Euh, loolu la sàcc. Ah, juróom fukki laadum sàcc nañ ko fa sàcc ci neuf fii quinze fële. laadum lay sàcc. waaw ay laadum. kooku jannaaw romb section recherche di déggoo waaji ne li fa li ñu ramassé ay xar bu ñu indiwaatoon waa kër gi képp geesa yem de laadum <laughs> bu ñu ko indiwaatoon kër gi ku ne tabax immeuble dëkk bi hmm? lu leer laa la wax tey le problème nag mooy xëy man ju ko jaral mais ci ñuy mais nan ngay ak xar yu mel noonu tamit te doo wutal fu baax ñu nekk fa wutal leen sécurité wutal leen lu leen di aar ba nga xam ne sàcc leen du yomb. est que dégg ci wax ji mu ne am na ci borom xar boo xamante ne dañ ko naroon rey. pour yóbbu xaram. waaw gars yi arme la ñuy yor di da nga yor gardien ñu ñëw duma gardien bi yóbbu. garaaw na <laughs> yërëm naa ko sax ne xam naa ne xar bu ñu mës a sàcc ci dëkk ba dina ko fay. <laughs> te sàcc te sàcc ëpp fit ci àdduna. dina ko fay ci nii ba mu fay ko ci na tey kii dem bay indi at moom xoolal kii ki ki ñu jàppoon ma teg nii écran plat ci digg kër gi dem dugg daal di jël télécommande bi. bi mu ñëwee fekk beneen sàcc ginnaaw ko sàcc écran plat bi yóbbu ko mu ne mu ne moom du bàyyi li mu sedd day day day day woo boom kër gi <laughs>